salaamaaleykum à tous nos amis internautes de votre site d'information euh, Dakarnet ravi de vous accueillir Ousseyn ngeen di àndal saa su ne ci émission bi nga xamante ni euh, mi ngi tudd Gise ak Gise ak nag gëjoon ngeen ñu gis mais tey dañoo ñëw fii nga xamante ni moom mooy jàmm gën suñu waxee jàmm gën sa xel dafay dem ci ki nga xamante ni moom mooy Siteu waaye ñun tey ñëwuñu fi euh, ndax Siteu dañu fi ñëw ndax beneen phénomène beneen jeune boo xamante ni mi ngi lëmbe làmb ji mi ngi lëmbee internet bi ñu koy wax Liss Ndiago ñun nag xamuñu kër gi dañuy taxaw fii laajte fan la kër gi nekk waxtaan ak booy pourquoi pas ñu joxoñ kër gi ñu dem waxtaan ak moom euh, lépp la Baye Fall ma naturellement tumaane ñu dem léegi léegi. waaye noo tudd yow. Euh, Souley laa tudd. Souley nan. Souley fii fan la. fii jàmm gën koñ Njaawa. koñ Njaawa waaw. ñun Njaawa la ñuy laajte quoi. Liss Njaawa ba doucement doucement Liss Njaawa la ñuy laajte. Liss Ndiago mu ngi fee. ah mu ngi nekk taago bi. Ndiago or Ndiago soo leen def waaw waaw ah, booy sama micro bi ngeen doo leen ko bàyyi tamit ah jàmbaar mais Liss Liss Liss dèjà balaa ñu nuyoo ah ñu demee nii man maa ngi taxaw fee di présenté wu dama tudd liis rek booy ñëw sa xëtoo ma a jël micro bëgg a wax ñoom ñëpp ni yaa ngi toog fi loolu nu mu demee xale yu ndaw yi nii nu mu demee sa diggante ñoom. naat booy maa ñoom ñoo bokk mafia mafia tiril bu ndaw bi la. bilaay ñoom lami ñoom boy waaw nangu wala nga deseet sew comme noonu bilaay bon ah, na naa na naa mën naa toog ah bëgg naa toog de pour ñu waxtaan tuuti ah mën a nekk ana ana Laurent bi waa Laurent dafa war a toog nii de alors tout yaa ngi may ah? ñu dugg si si waxtaan bi direct ah euh, donc déjà dama lay bàyyi nga nuyoog mbokk internet su Dakar Net après ñëw si waxtaan maa ngi lay ziar waaw ñoo leen delloo ziar bu baax di la wan a ginnaaw bañ si sant yàlla sant Yeesu Kirist ak bi di bëggee àdduna di nuyu àdduna di nuy la di nuyu képp kuy bëggee Liss Ndiago bu baax waaw di la wane soyez bienvenue Liss alors Liss lu mu bëggoon xam mooy xam nga fii nii bu ñu waxee jàmm gën bu njëkk toujours suñu xel yi dafay dem si Siteu quoi balaa ñu ñëw sa digganteek ak Siteu yow est-ce que yaakaaroon nga ni diggante bi nga duggee si làmb ji ak diggante bi yaakaar nga ni yàlla dina la fi jox tur bu tool nii. waaw lépp yàlla la quoi. par ñun ay xel lañ maanaam ñun suñu dëw waar rek lañ def ak suñu gëm-gëm ko waa dama damaa gëm man ëllëg damay teel làmb sama loxo ba tey ba suba loolu laa gëm te incha allah si tànk yooyu laa nekk quoi xam leen leneen lu ko waa yàlla la quoi tamit waaw ak nit ñi quoi waaw parce que taalibe la rek tamit parce que fi nga yeg yow mënoo fa teg sa bopp nit ñu ñoo la fay teg maanaam nit ñi la fay teg foo nga jox leen seen cër te ñun noonu la ñu yore waa mag lu moom nga jox ko xale moom nga jox ko waaw. loolu nit gën a soxla lu dul yàlla suñu borom nga bàyyi ko moom. donc donc maanaam euh, mbooloo bi yar yar yar bi ngi leen wan ak respect bi ngi leen wan euh, est-ce que ndax làmb ji ci la bokk maanaam mbapat bi ci la bokk lañ la toppee wala yaru bi kase la. waaw mbapat avant tout waaw ñun moom mbapat de dañoo bëre fu ne si làmb si mbapat tournoi mbapat lépp avant suñu tur yooyu fa la jógee quoi balaa làmb ji waaw dañoo jaan mbapat lu bari waaw. alors Liss euh, li ma bëggoon ñu waxtaanee ko mooy. Euh, dañu gis ni tamit internet bi gars yi dañu fa bëgg TikTok bi yow yaa choisir pour pour xam ni jamono lii la laaj xaaral ma dugg si pour gars yi gën ma xam wala sa copain yi ñoo la ci forcé wala nu mu demee noonu quoi ba TikTok bi instant bi nga koy lëmbee nu mu demee noonu. waaw loolu tam bëgg nañ wax si man mi man muy man di Laurent sama ñun maanaam TikTok dañuy si woon suñuy xarit ñoo naa ñu nii lay demee ak nii ak nii barki alxuraan billaahi luñ ñu toogee suñuy kàllaama rek di wax yow boo ñëwee bokk si wax ci ne après da ngay ree billaay parce que noonu lañ mën a waxtaanee ñun kese noonu la demee yes loolu naturel la si ñun billaay alors sa digganteeg sa digganteeg sa écurie parce que écurie bi nga nekk boo xoolee yow a travers yow tax na nit ñi commencé di xam écurie boobu je pense que moom mooy écurie yi si Kambaaw ah je pense que yow à part yow ñoo fa nekk ay mbër yu ñu xam ci arène bi. waaw Igri Diamond Sikamba maa ngi profité di leen nuyu au passage sax suñu président Ndik Fall ay grand langom ay Mansour ak ñeneen ak ñeneen bëri na ay champion ay Sirou bu Diamond nag foofu ay Léopold Bébé Daaru Mbës Mbay Xaraa Boy Susu Mara ay béton armé yeneen mbër yëpp a ngi foofu ku lim na ngay juum bëri na ay xale fa nekk quoi. alors ñu gis ni yow da nga da nga daan bi nga daanee net dafa yàggul dara ci la troisième vague bi ñëw ndax diggante boobu gars yi ñu ñoon dox sa combat jot nga am combat ci diggante bi wala jotoo ko am. waaw man moom sama combat yàlla def bu ma jugee si combat rek ñu ngi doxaat sama yeneen combat yooyu yàlla def Covid bi ñëw troisième vague bi dinaa roy noonu. yaa tamit di masawu tamit xam nga mbër yi du jotoon préparer seen làmb def seen weccet yéen nit ñi jàppale ko waa affaire bi tamit xañ leen ko ko waa mais tamit xam nga sant yàlla bu baax parce que nit moom mosu waaye lu warul am nag du am mais lu war am nag day am. di la ñaanal yàlla na ko yàlla fi génnewaat fan yu néew. ba ku ne di nekkaat sa làmb ko waa ah, ñu gis sa naataango sa naataango mbër bu sita ñu jooy mi metti mi jooy affaire bi mu kiiwee bi nga gisee jooy yow noo ko dundee. waaw moo ko gisee tamit waaw yërëm naa ko parce que ay mbër lañ non moom mooy loolu ay mbër lañ yaa ngi dégg parce que dafa métti nga jël sa weccet te ñoom ñooñu ne la Covid bi am na kenn du si yëkkati xaalis ne la am dabul li nga defoon sa làmb te ñun ay xale lañ ko waa ñun bu ñu amee combat leneen leneen dañ siy dugg pour waaw waaw yaa ngi dégg di rey suñ bopp ñëw ba mu des ay lax si temps nga ñu làmb yi amatul léegi ñun weccat boobu ñu dugaloon noon noonu léegi kan moo ñu koy remplir kenn du la ko remplir léegi maanaam yow boo toogul jooy si télé sax di ko jooy sa biir nekk yaw wala ñun làmb lañ am ñun ay xale lañ maanaam état bi ñu dimbali te yàlla tax maanaam nit neexul yow yow rek a war a neex la man rek maa war a neex la kenn neex la non non maanaam yow sa li nga yéene sa bopp rek yéene ko nit ñi te tamit nit ñi buñ buñ la buñ la jox buñ la maanaam la joxee lépp jiital la waaw day la ko tegal si yoon rek kon ñun làmb lañ am ñun duñ baay làmb dem di def defi leneen. billaay amoon tamit xale moom boo boo boo xañee lu mu bëgg rek mun mun mun nga ko dugal si leneen wala état bi nañu ñu jàppale ñun làmb lañ am ay xale lañ. sàcc ñu fenuñu dañuy liggéey pour teral suñuy waajur comme ñoom ñu bëggee teral seen waajur kon nañu jàppale ko waa ay xale lañ waaw làmb lañ am. alors ba léegi yéen ci seen émission euh, gisaak tey ñu ñëw fi nga xamante ni moom mooy Diamaguène euh, ko ñu Ndiago fekk fi Liss Ndiago mën naa ne léegi sax mën nañ ko woowee le phénomène de Diamaguène Sicap Mbao alors moom dañu euh, bëgg continuer waxtaan bi mais fi ñu bëgg a waxtaane tamit mooy ma fàttali ne sa sa frère sa grand frère maanaam Siteu moom tamit lu ko dal ñaar yoon nañu reporté combat bi situation boobu noonu mu metti trop trop noo ko noo ko noo ko gisee yow billaay parce que yow benn yoon rek dafa méri xuma laa yoon di préparer sa combat bu desee ay semaine ñu la yàqu na préparer am des ñu la yàqu te gi nga combat mbër bi waaw ñoom ay mbër yu mag lañ ko waaw parce que tamit seen làmb day bëri fere waaw day métti seen côté trop te instant bi ñoom ñëpp dañ faa teg jeexal waaw di leen xam loolu di wax era bi tamit nañ bàyyi làmb yooyu noonu parce que yàgg na trop quoi ku si mel ni Balla Gaye Bombardier sax waaw waaw dañ leen woon encadré parce que lamb ji boo xoolee ci septembre juste la waroon jeex daanaka un mois moo ci desoon yow gisoo ni woon état bi dafa leen encadré gars yi takk masque takk zel yi ñu dem bëre ko benn 15 jours wala benn un mois affaire yi jeex quoi gisoo ni loolu moo gën reporté ko waat ñun nangu nañ loolu parce que ñun lu ñu am bëree ñu ko gënal billaay bu ñu ko tegoon si yoon rek teg ñu si code ñun nangu nañ la parce que ba lamb méttee ba tey ba covid bi amee ba tey mënoo gis benn mbër bu wàcc ci terrain bi di manifesté wu di def lenn lu ñu lay xeebee ñu ngi suñu rukk di entraînement yooyu di dund ak suñuy ngor quoi kon nañu jàppale bu baax maanaam ñun ay borom gëdd lañ si réew mi fii nii waaw. alors yan rapport nga am ak Siteu sa dëkkandoo la sa grand la yan link ngeen am. waaw rapport yi mu am ak booy yi nii nii moom laa am ak moom nga booy ni nekkee samay xarit ñu foonoo man noonu laa noonu la nekkee sama grand parce que moom ak samay mag la woon démb waaw ñoo doon ànd quoi ba tey nii man ma màgg di bërantu nii. suñu grand suñu grand frère la billaay waaw suñu grand frère suñu grand frère la quoi barke alxuraan. billaay alors euh, démb nag euh, mercredi bi passé CNG bi dafa jël benn ndogal dafa ni mbër yi nañu dem ñàkku ci maanaam mbëri yëpp ay ñàkku ci pour nga bëree foog nga ñàkku ji sa ay staff dafa war a ñàkku ji même say supporters war a ñàkku ji te il se dee loolu am na il li des ci arène li des ci saison bi ñu ubbil leen ngeen bëree ndax euh, gouverneur bi apprécié na apprécié na loolu mais li xaw ak doy waar mooy boo amee 18 ans kaw ngay ñàkku yow mi nga xam ne say public ay xale kese la noo ko noo ko ba lijjantee loolu maanaam kon boo amul 18 ans doo ñàkk. waaw te moom sama làmb gis nga booy nday mbocc moom nii sax day dem làmb ja booy kenn am ñu si am 18 ans xam la wax da nga koy compter kon maanaam ñàkk boobu génne nañ si booy kon waaw bu defee grand frère yi ñun nii ñii soo jubul quoi parce lu neex samay supporter neex na ma quoi waaw buñ bëggoon par ñoom buñ seen li say bëri sax dimanche waaw man it mooy loolu moo seen damay bëri sax dimanche waaw amul problème waaw bu dee dañ ko buñ ko defee ñëpp dañuy bëri rek amul benn problème yow daal bëree tax ngay ñàkk lu sa wér gi yaram. bëre moo tax may ñàkk billaahi dëggoo ma bëre moo tax may ñàkk bu dul bëree du ma ñàkku de. kon waaw bu booy paree rek pare naa waaw. waaw mais ñu gis ni tamit li yow si lamb ji surtout bi sa lamb ji bi mujj bi dañuy gis ni da nga léegi da nga gën dal quoi lan la da ngay sóoraale public bi wala da ngay sóoraale défaite du trop wala lan la te yow xale nga quoi da nga war a ñëw dëggal sa bopp mais dañu gis ni ngay ñëw di di naxanteeg waa ji ba daan ko dem quoi nu mu demee noonu xeexoo sax presque. parce que xam moo tax ñu noo teg leen ñetti combat yàlla may ñu ndam naago ak fugur jeunesse ñëw suñu quatrième combat am la wax jàpp lu taxaw suñu kanam rek ñoo la mën waaw ñu ñàkk suñu quatrième combat moo tax gisoo cinquième yeeg sixième lépp day ñëw jël suñu temps parce que lu topp suñu ginnaaw moo tax. yaa ngi dégg maanaam amul mbër bu ndaw amul mbër bu mag nit boo xamee lu topp sa ginnaaw doo sonn man sama làmb man gagné laa si parce que toltuma fu may wanee sama bopp si làmb parce que nit ñi xam nañu woon may ñëw pour gagner sama combat waaw ak lu mu métti métti métti guddi guddi guddi jàmm a gën. billaay. mais est maanaam mbooloo bi ni muy ñëwee exigence bi booy ni ñuy bëggee nga am ndam pression boobu noonu est-ce que loolu dem ba si làmb ji sax mu mu mu mujj la perturber quoi. non non pression ñu man làmb mënu ma si am pression ak lépp leneen lu dul làmb mënu ma am pression si leneen. billaay au contraire samay raq yu bëri wala samay mag genre yooyu noonu yaa ngi boobu mais man bu may bëri bu ma bëri man damay xam lii moo ma war damay ñëw def ko dem sama yoon si ful ak fayda bu dee dafay jar bakkan bi des fa dafay des quoi waaw mais lu ma war dama koy def rek dem. sa diggante ak sa sa frère dafa mel ne temps yi nag bés bi mu ngi koy commencé di jël si yow ndànk est ce que doo ko wax mu xaar tuuti tamit bàyyi la nga gën a avancé mu doog a ñëw booy bi temps yii yéen a de Laurent. mooy yoon billaay mais Laurent ñu bëri ñu naan dafa teel ni mu duggee si làmb xale la yow dèjà ku xool xam ne de xale nga mu ñëw bëgg a bokk ak yow parce que licence moom fii boo xasee ba am mënoo ko mënoo ko dara te mu teelee dugg si làmb ji nii yow man ba may dugg si làmb man maa gënoon nekk nekk tout tànk foofu man sincère dama fa di jël sama licence ñuy reetaan barki alxuraanu karim ma ne loo reeñ ñu ne ma yee des ma ne ay tout mais loolu boo ko gisee maanaam ñun fu ñu dëkk moo tax ñun fi ñu bëree mbapat mbapat boo bëree du yegg fii nii waaw parce que man maanaam ñun suñu ginnaaw xam nga weesu na mbapat quoi dépassé na mbapat boo bëree du yegg moo tax foos nag xam nga nga tourné solution dugg arène naa te moom tamit xale la quoi parce que tamit ndaanaan la quoi bërekat la billaay. loo koy loo koy conseil en tant que mag. lu ma koy conseil mooy maanaam fu mu ko jàpp nii baax na quoi foofu la. gën a yokk entraînement yi rek parce que nit ñëpp am na fu ñu lay xaar boo xamee nit ñi am na fu ñu lay xaar rek xamal sa bopp quoi parce que daa war a ñëw wone daa war a wone ay waaw parce que dañ koy xaar instant bi yow yow instant bi nii lan lan lan nga bon en mbas bi ñu ngi am yaakaar ni xëy na bu gars yi vacciné wu di ngeen bëri waat ak yooyu même boo bëriwul saison bi ñu ngi am yaakaar début saison net saison bële di ñëw di am combat donc lan ngay lan ngay wax ci say adversaires yi kan nga jàpp ni ban catégorie nga bokk ndax dañ la grand yi dañ la war a may chance wala da war a topp sa morom ba ci kanam wala. waaw surtout loolu quoi. bu ngi lay laaj. nee na woon bu paree woon si 30 xaw ma 37 <laughs> fu yow la doon laaj sa rakk bi sax ñëw di di taxaw doom. naa yow bu bu rek samay morom rek nii nii mënu ma leen jeexal dafa jot ko waa xam nga loo wax. 6 combats la am 4 victoires 5 victoires benn défaite yaa ngi dégg. maanaam ñuy toog suñu ginnaaw ñun. tey ñu bu ñu duggee stade da nga ñooy bëri grand combat waaw du bëri na ay yoon mais jot na tamit ñun mënoo jeexal suñu morom bu dee sa morom yow nga bëgg a si làmb moom teelal toog quoi mënoo jeexal say morom da ngay bërëg ñii xam la wax ñee loxo nga dem bërëg ñee ngi dégg te bëri na ay boo yoo xam ne ñu ngi si làmb yi man maa bu ñu joxoon làmb joo xam ne làmb jànk la dañ naan tey mooy kan mooy kan dañ naan kii bu bu bu yeewee liis rek jee saa day daggale ko waaw loolu laa bëgg pour mën sa tafa mbër nag dafa am Ada Fass ñooy bëre waxuma la ki ñu daan de ki daan na ñu bëre quoi ki ñu daan soxlawu ma la. Tapha Mbeur même bu ñu ko daanoon bu dee ku daanu soxlawu ma la ku daan ñëwal ñu bëre waaw. billaay lambu jànko yooyu laa bëgg. waaw parce que tamit lambu tamit am na fu muy toll public la ci joué parce que yow sa début dafa xew a niróog début Siteu dafa xaw a niróog début Modou Lo surtout Modou Lo est-ce que parfois sax duñu lay tooñ naan la gabarit bi. xeesaay bi nii da nga am turu trait ak Modou Lo duñ la koy faral di naa waaw loolu moom loolu ay wax la rek. billaay man moom maa ngi njaago baa ngi waaw. da nga fi bàyyi sa mbokku njaago yi wala parce que franc sa mbokku njaago la mais sa la tey tey boo nee woon ba yàlla dogal nga euh, kii bi nga egg niveau am ngeen war a bëree ndax da fi bàyyi njaago yi wala daf bàyyi njaago yi. moom sama grand frère la ba nii may wax yow dañuy déggante démb rek lañu moom waaw sama grand la ko waaw. mais bu dee bu dee par exemple boo xamante ni njaago hmm. waaw xam nga tamit loolu la yegguñ ci. moom mu yeggee rek. Hmm. waaw. naa di sëgi njaago laa. Ah. yaa bi la wax ne ma waaw. <laughs> non Liss non dafa laaj Liss sañul lii Liss de sañul moo bañ a laaxal njaago Liss njaago Liss njaago ah, turu njaago bi mi ci léegi nuyul sa mbokk njaago nga nga bëgg leen ñoom ñu lay seetaan maruuba yetinji tu ye di leen wax ne uleef waa nji ma ci na paj yaa ngi dégg naa leen ko jooy ngelaj ngelaj <laughs> Liss alors bon kontaan nañ quand même bëgg nañ gën a yaatal waxtaan bi mais dañ fi ñëw fekk fi sa rakk moom tamit mi nga xamante ni nekk si yoonam au delà de bëre bi wax si moom mais moom li gën a grave moom mooy gars wax ji lañ gën a xam ci bëre bi man personnellement man seetaanaguma làmbam carrément mais wax ji moom daf may faj di faj ñeneen mu sax moom bu dee dafa jege na ñëw bokk si si waxtaan bi donc lan ngay tëjee ak mbokk internet Dakar Net bi. waaw lu mooy avant tout di sant képp kuy jàppale Liss Ndiago yaa ngi dégg di sant Bousse Bousse. Bousse Ketchup. maa ngi koy bu baax di ko di sant Mbaye Ndiaye borom Port Saroy di sant Grand Thioune ak Mansour grand Mansour maa ngi koy bu baax di sant Ndege Seer Papa Boy Djiné di sant mafia bi yëpp di sant mafia Tiril bu ndaw di sant képp kuy jàppale Liss Ndiago di Maodo. waaw borom port di sant képp kuy jàppale di sant maire Awa Balla ak maire sama yaay ami affaire waaw di bëggee ñëpp di leen bëggee tamit bu baax gaan waaw comme noonu ah.